chers amis internautes de www.senclic.com nous sommes avec Basile Niane di journaliste blogueur ba pare nekk conseil national antique tey ñu fas yéene ko laaj Basile ça va na nga yàlla. tey ñu daje fii ci salon international des professionnels de l' économie numérique. ñu yàgg la xàmmee ci ci liggéey bi ci wàllu numérique ngay journaliste nekk blogueur di de presse. ba pare nekk conseil national ci wàllu TIC. tey bu ñuy wax maanaam TIC. bu ñuy wax TIC numérique Sénégal actuellement sa xalaat sa gis-gis est-ce que mu ngi dox. waaw fu mu toll nii mu ngi dox parce que léegi sax comme ni nga ko waxee kenn waxatul TIC kenn waxatul NTIC léegi dañuy wax TIC pour euh, technologie de l'information de la communication donc mu ngi mu ngi ñu ngi gis nii que euh, Sénégal mu ngi def ay jéego yu rëy jéego yi mooy am na benn plan stratégie boo xam ne Sénégal def na ko. Euh, am na événement yu bëri yoo xam ne euh, nguurum Sénégal ñu ngi koy def ngir développer lépp lu jëm si xarala yu bees yi bu si mujjee mooy CPN bi nga xam ne moom la ñu nekk fii nga xam ne ñi dafa regrouper acteurs yi ñuy ñuy ñuy mën a xalaat si naka lañu mun mën def ngir yóbbu Sénégal ci kanam parce que nit dañuy dañuy dañuy fàtte ni que suñu réew bokk na si dëkk yi nga xam ne ñoo gën a taxaw en matière de technologie si Afrique donc as c'est vrai que am na loo xam ne war nañ ko defaat mais euh, lu bari ñu ngi koy def ñu ngi xalaat nii fii balaa deux mille vingt cinq wala deux mille trente lépp li nga xam ne gouvernement bi jël na ko ngir euh, dimbali xale yi ci wàllum liggéey waaye télémédecine li ñuy wax intelligence artificielle loolu yëpp suñ ko boolee méngoo je pense que dina am loo xam ne dina ko indi lu bees si si si si développement réew mi ñu gis na aussi tamit ndaw ñi dañ ko gis dafa mekk métier boo xamante ne ni nit ñi dañ ko ñëpp songandoo donc songandoo boobu est-ce que formation bi am na ci li ci war ak yooyu mu am formation parce que tey dama ne euh, numérique bi chance la pour ñun ñuy ndaw parce que dañuy permettre ñu am ay métiers yu bees yoo xam ne dafa génn ndaw yi euh, da jàngatuñu comme ni ñoon jànge auparavant jàng bi moo xaw a soppeeku dafa am ay métiers yu bees yoo xam ne génération bi les jeunes moom la ñu war a jël mun ngir avancé te loolu numérique rek moo la mën a may chance boobu noonu mais loolu tamit nguur gi moo ci war a ànd ngir dimbale xale yi parce que emploi bi si numérique la war a jaar numérique bi dina si am euh, rôle bu mag boo xam ne dina ko si jouer pour Sénégal euh, nekk vraiment dëkk boo xam ne lépp lépp lépp connecté lay doon. ok ñu gis na aussi tamit actuellement pour rejoindre le tuuti donc assa yi ak transfert yi ak yooyu boo xoolee ci numérique bi léegi affaire affaire ab métier yëpp léegi ci numérique bi la. donc est-ce que léegi euh, côté sécurité bi am na ci. waaw côté sécurité bi am na ci parce que je pense que d'ailleurs sax fii ci Sénégal Dakar dina am benn école boo xam ne nañ ko ubbi ci euh, ci wàllum cybersécurité donc loolu yëpp boo gisee mooy wane ni que tey mënuñu wax numérique te waxuñu sécurité parce lépp lu mooy suñu données yi maanaam sa tur sa sa foo dëkk jógee loolu mooy dene personnelles loolu bu ñu ko jëlee euh, bu ñu ko protégé wul donc li ñuy wax cybersécurité day day day am day day day am problème donc numérique ak cybersécurité ñoo ànd te loolu euh, gis nañu ni tamit nguur gi mu ngi si def ay jéego parce que am nañu agence de l' de l' am nañu euh, la commission des protections des données personnelles ay ay xeetum euh, institutions yoo xam ne ñu ngi fi vraiment pour dimbale sénégalais yi ñu mën a xam lan mooy cybersécurité ak naka la ñu mën a protéger seen données donc foog naa loolu lu baax la. aussi ndaw ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ciy jóg dugg ci métier bi yow donc def nga ci expérience bu nga ci année yu bëri nekk ci patron de presse ba pare nekk conseil national ci wàllu technologie ah donc tic tic du numérique mais léegi lan conseil nga ciy jox ban conseil nga jox jeunes yi quoi. conseil mooy euh, nañu nañu jël numérique bi comme une chance maanaam loo xam ne chance plus si ñoom ngir ñu mun a développer seen seen entreprise yi. tey jii pour euh, créer entreprise si net bi nekkatul lu jafe mais tamit il faut que nguur gi aussi faciliter création entreprise maanaam tey xale bu jóg bëgg a créer entreprise ñu wàññi fiscalité bi waaye dimbale ko wan ko yoon yoo xam ne dina ko mën a def ngir mën a avancé loolu yëpp bokk na ci ay xeetu euh, affaire yoo xam ne bu ñu ko defee dinañ mën a dinañu mën a avancer donc je crois que chance la il faut que ndaw yi dem ci mais pas dem ci ak doole mais dem ci ak loo xam ne am xel ak xalaat. ngir mën a jël chance bu ñu am si numérique bi développer croissance économique Sénégal. ñu ngi lay remercier Basile merci. jërëjëf.